jëm ci ubbiteg transport interurbain bi file ci dëkk bu sell bi di Touba dem bekk dikk bi ci diggante dëkk yi tàmbali na file ci gare routière bi bi 5 heures du matin jotee daanaka liggéey bi daal di tàmbali chauffeur yi ñoom itam tàmbalee ñëw ak ñi nga xam ne rek ñoo di way tukki yi file nag ay matuwaay yu am solo yoo xam ne itam jotees na ko cee jël ci la nag xam ne que googale que liggéey donte tàmbali nañu ko jëm ci wàllu ko dem bekk dikk bi donte nag na mu doon mel ak léegi am na coppite goo xam ne rek am na ci sëriñ bi la moom di yëngu ci fànn gu mel di dalal xel yi ticket bu ñu demee nii moom dana baax soo yàlla ndax fii na moom amagut benn coow amul benn kii moom benn kii amagu ci moom te xam naa ne client bu yéeg balay kii da nga jox sa dënte da nga jox sa yëpp da ko joxe ñi soog a jël booy dem ñaari fooy la yor benn bi ngay bàyyi ci bureau benn bi nga yóbbaale lool la suñu jatigale digal daal moom la def IDCA. di xam nag kayit bi nga xam ne rek ay mandarga yi lu bari ci doomu aadama bi dinañ ko ci def moo xam numéro téléphone am adresse am pièce d'identité lile moom ku ko amul file ci gare routière bi doo mën a voyager. bus yi nga xam ne ñoo nekkee file yab bi nag nànk-nànk sëriñ bi moom itam daal di fas yéene jógee file ci dëkk bu sell bi di Touba delluwaat fa mu nekkoon. parce que boo toogee liggéeyoo bu ñu demee ba ubbi la liggéey da bu waaw mesures yi tamit am na ci solo comme que instant bi feebar bi mooy fi ba léegi liñ mën a def mooy ñu jëm a moom ta jéem a dem liggéey rek parce que jàpp nañ ne fi ñu toll nii mënatul ñàkk quoi pour nit ñi dem liggéey mënatul ñàkk foog ñu jéem a dund ak feebar bi mais bu ñu dund feebar bi ñu jël suñu matukaay li nga xam ne si ni moom la docteur yi wax ak gouvernement bi ñu wàcc ak moom te dem liggéey rek lu jëm ci wàllu transport interurbain bi jëlaat bi nag mu mel ni fii la ci dëkk bu sell bii di Touba tàmbaliwaat na waaye nag wuteeg lool ni nga xam ne rek noonu la doon demee bu dee nag ci matuwaay yi nga xam ne rek jël nañu ko fii ci garage bi loole itam nee nañu nag dinañu ko gën a taral lu jëm ci nombre bi nga xam ne rek moom la ñu doon ya amul genn coppeek koo xam ne itam am na ci la ñuy bañ kay mooy surcharge jëm ci masque yi ku ko takkul moom file